mi ñëw ànd également ak suñu suñu jërbaat suñu fan yële amoon naa fi sama benn doom bu ma si may woon voilà di ànd waa di neex di rek euh, ñëw fi ndax xew-xew bi fi am ndax keroog bi muy bi ma koy dégg dafa fekkoon altine boobu ñu amoon réunion waaye ñu xëy mu xaw a lool ndax benn bi la ñuy njëkk yëg teguñ biir ñu wax ñaar wax ñett loolu yéeme na waaye nag nekk mbir yàlla ndax moo tax nag bi mbir mi amee euh, ko Abdoulaye Diouf Sarr peut-être ak suñu ci réew mi war nañ fi ñëwal suñu bopp ñëw indi suñu ndaam daal di leen suñu bopp yooyu fi leen yàlla xaajale jàmm dem nañ ci contexte yàlla dogal yàlla moom nattal na kenn ku ci nekk kenn nga war a yem kenn amul gañe rek waaye kenn ku ci nekk xam nga def ci war a def ci war a jaar tey samedi nga ñëw ñaari seen Pape Diop ma waxoon ak Abdoulaye Diouf Sarr loolu la wax ban heure ngeen jàpp ne baax na. bëggoon naa fi ñëw ne maa ngi jégalu toogaay bi yàgg na parce que depuis midi maa ngi yoon bi waaye yoon bi jéem day xat waaw soxna sax moom mu dugal ci biiru xëy dama nañ jaar bi puisque moom dam na fi jaar loolu moo doon ba mu yëg waaye daal du tiis bi ñoom ku bokk ak yéen ñaan la yàlla mbokk yi yàlla xam ne ak jàmm. Mm-hmm. yàlla yóbban bi ziar ci sëriñ bi. yëpp wax dëgg yàlla ren xew-xew yee tax xam naa ne ñun daan gisee duñu ko gisee waaye ñu ñaan yàlla yi yàlla mu jëlee fi lii ndax euh, pour l'instant en tout cas ñu ngi ci yoon wax dëgg yàlla te ci xeexal bi ni mel seen doom aussi am juróom ba mu sol muy Ablaye Diouf Sarr toll euh, nay temps fukki yoon dinañ ko wax ci bis bi léegi ma toog nag ñaari fan ñett du ko dégg ma ne ko kon loolu parce que dans les temps toujours ñu déggante ma ne moom ndax kenn ku ne daa am rôle bu muy joué ma yàggoon ko waxit ne ko ah sa yi di am na rôle bu ñu war a joué ci mbir mi parce que mbir bu la ko déggee moom kenn war ci jiitu say mbokk naa ne di taxaw nañ ci ñu di ci mbégte rek fii maa ngi doog dugg ci bërëb bi nag garab gi damaa yaakaar ne soxna si am na lu mu ci xam. maa ngi fàttaliku laata muy tàmbali. ma gisee ñoom 2014 ak Mbaye Fall. ñoo xam ne man soxla nañu bërëb keroog dama yëkkati sama téléphone. wax ko jiitu réew. boo ko lii tàmbali tey laa fi dugg dugg. ne woo ko ne ko ah. Cambérène de soxla nañu barab pour Serigne résidence. dana recevoir leen def ma instruction bu nekkuma intérieur maa ngi industrie dama wool diw ñu tàmbali ko kon nag mu ñuy fekk bi lii mu ciy sant yàlla am naa ci biir loolu ok jërëjëf ñëwaat ci ñaareelu ñaareelu aspect bi yow ci mbaax bi nga ñëw en tant que genn ngoon nga Jolof ba fekk nu jàmbalaay ci maye yi bare na ko jiite ko taxaw mais comme ni ma ko keroog parce que yaa yore culture kenn kenn mën na ciy jàpp waaw mais lépp itam mooy rek da jaxasoo nga am njaboot bi ba noppi lu ko jiitu ndoom tànk yeneen yéen jaxasoo nga ñetteel bi booy di nag di yëngu ci lenn ci ndàngam yëpp defe naa ni ku may jokkook la ak moom ci ay mbir waaye li am solo mooy ni daal kër gi ak ndàngam yi ndàngam bàyyi na xel xew mi lii dañuy jëkk nangam njiitu réew mi ba mu amee dee ci suba teel bi ràññ parce que comme ni ko waxee am na lu ko ci nangam mu bëggoon xam lan la ndax jàngoro jamono ji lépp comme kooku yitteewoo na fii ci suba ngoon bi macha allah mu yewala délégation bu mag bis d'état Mbaye Ndiaye jiitu ki looloo yaakaar naa ni mais lu ci tegu mooy këri diine ci Sénégal vraiment ñii egsi nañu fi ñii woote nañu fi macha allah loolu nag ah ku ni sëriñ Ablaye bi loolu la ak réew te dal na dalal na suñu xel loolu sëñ Bay Si Mansour di ci gën a yéeme sëñ Moutaga sëñ Moutaga ñetti délégation bu sa li leen yónnee na comme ni nga kii waxee délégation bu mag bërkë bii sëñ Ba ak Ba Lahad Lahad la yónnee waat ci man démb bi may bëgg génn rakkam sëñ Isaaxa Mbàkke ñëwaat ci kër ga loolu dëgg dëgg yëpp mën a weesu kenn Bachir Tall mu ngi ci mu réew am na comme fi yabal ak naa ñi ci des ñi ci des ñi ci des ñi ci des kon yow ay ministre intérieur en même temps yi da war a xam loolu mu ni wan ni loolu lépp nag muy réew mu nga xamante ni réew mi bu ñu juboo à travers suñu këri diine rek mooy gën a xamee ni njaboot gaa ngi nii ni nga leen xamee dafa toog su ma yi nekk wër ci nekk tey jii man ngaa toog fi wax te ma toog sama kër loolu dafa daal ñun noonu la ñu lii ak leneen dafa am fu ñu teg la ci jëkk jiitu dañoo fekk suñuy maam moo di ay bi nga xamante ni noonu la réew mi doxee Seydina Issa foofu teg fi njaboot yàlla yàlla yàggal ak kilifa diine donc li ñuy tudde nag lépp lu nga xamante ni dina war a mën a jàmmal nit ñi jàmmal réew mi looloo war a gën a nekk parce moom gën a yitte rawatee nag ñu dëkk Ndakaaru defe naa ne waxuma la au delà des arguments juridiques yoo xam am na ko ci ay biir yi fi jot a xew dafa am loo xam responsabilité Seydina Issa mi ngi meññ kër gii ngeen toog tey ba fii mel nii ngeen dégg ngeen xam ngeen ni Cambérène 14 la ko indi fii loolu est hmm. mais yamul ci indi ko ngir yëpp dafa li mu doon def dafa teg tànkam ci suñu xadis la bu jamono dee dox peste bi pandémie bi ñëwaat même ci beneen tur mu ñëw ci jamonoy kan taawam dangaa jamono ji léegi Seydina Issa dakaa faje woon ne mesure barrière yi ba mu koy xam defe naa ni gars yu bëri def na ko fële Kaaba fële ñii dañuy départ fii fii ñi jóge ci dëkk bi ñëw teg li ñuy war a indi fii ñi jóge ca Kaaba jël si na dem kenn du la loolu la kon bu jamono waree mun a dox ba àdduna Sénégal loola songuwaat que mu fekkaat xilaaf ak Serigne Ablaye di taawam mais ñun ban Ablaye Diop seen seen ay sax ma tudde hésité wuñu benn yoon xam ne lii ka ah dëgg dëgg jamono bi communauté bi di jël loolu quatre jours pour nangam ci événement bu gën a rëy événement phare fan la Sénégal Dakar. mais Dakar bu feebaree réew économique bi lépp mooy àndandoo jëm suuf ñu suicide politique l'islam may mun ko naa ne yow ci sa mbaax ci mbaaxu président de la République wan ni njiitu réew bi dafay conseil ñi mu war a wax ñëpp wax naa ñoo ah, nag dafa am notre kër suñu responsabilité kër la ñu jël suñu responsabilité ba ni ba bëgg dem ba ak ah, xale yi def nañu ngeen ngi commune yoo xam ne def nañu ci loolu na ne mais nag itam di wax ne la réewum Sénégal la macha allah ñëpp ñoo bokkandoo lii di ko xeex barke dem ku ñëwoon vraiment maa ngi woon gis mesure ñu jël kilifeer ñëpp ànd ci mais loolu fierté la pour Sénégal te lépp nag ndeysaan waxtaan ak ndangam kon yàlla na ngay yàlla ndangam te góor am ko ci moom muy wër këri ku ci nekk nangam waxtaan bu suti xalaat muy nangam muy nangam gérer réewam ci noonu loolu ñi ànd ak yow ci sa kanam fii li ci kër gépp parce que li ëpp solo ci suñuy nangam bu kilifa gi ba noonu laa yëkkati nangam ñu naan nangam mais déedéet daa ah, kañ foo am ci àdduna mais à l'unanimité boobu wala li ëpp dañoo tegu ci foofu ñu tegu loolu nag boo amee njaboot bu ngeen toogee dañ ci dañ ciy profité gërëm ci sant la communauté hmm. baax a baax a parce que suivre nañu teg nañ seen tànk bi nga xamante ni moom la seen xalif bëgg mooy lan mooy jàmm Sénégal nangamu Sénégal kon lii nag monsieur le ministre du fi jóg parce que nun ñooy taxaw wala suñuy waajur di jël nit ñi di leen daal di leen defal jëmaleen ci defe naa ni waxtu wu ñu yeewoo ci Sénégal xëy na façon yi comme ni nga waxee mooy wuute xam nga bi ñuy yeewoo batu la joolaa fii san Sonacos po leneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen réew mi macha allah ah ñu nangu yàlla ñu faal li ci doxalam waaye alhamdulilahi rabbil alamin it njaboot bi fi nekk yëpp dëkk bi ak ñu ngi ñuy dëkk boo demee imam ratib monsieur le maire chef de village ba ñun ñii ñi xamante ne dëgg dëgg la ñu bokk mu ñoom lépp di njaboot gi dëgg dëgg na yaakaar nañu ni ñun ñëpp ñoo war a mën a yëkkateendoo tegandoo mooy insisté bu baax di la gën a ñaan njaboot gi yow da nga bari ay mbir bare bare bare xam nañ la bu baax a baax mais di la dénkaatim na par sérieusement et nga xamante ni moom la dëkk bi am ci institution moom dama la ko suñu diggante la boobu dama la ko dégg lépp loo yaakaar ni parce que am na loo xamante ni ñun ay républicain lañu ñu ñu ànd ci lu dul dëgg donc lépp lu mu mënti doon ak lu mu mën doon nag li ma gënal bu nañ dem ba ca kaw luy yëkk luy jóge jege Cambérène mais jóge ci kilifay Cambérène ku ci nekk nag doon na ñaar si ca ginnaaw mais du yoon mukk ci dëkku capitalu diine bu dee ni Cambérène nga yeewu xool ay nit doo xam fan la ñu jóge ñuy wax ci turu Cambérène xalifa général de Laayeen ak yëppam ne fi loolu moom un gouvernement responsable war ko nangu baaxul bi ci des itam fii ma koy wax suñu bopp di leen ko amul lu ci nëbb benn yoon amul benn am droit occuper la voie publique tere ay sénégalais ñu yow mën na jur ñu bari quelqu'un ku jóge Nations Unies wala jóge fii bëgg a traversé Cambérène ab Sénégalais di yow ne ko fi jaar bëccëg mais bu yàggee na créé des te lu leer la ay ay ay nan baaxul muy de l'autre côté ci ñaari côté yëpp muy ci yéen muy ci fii donc dama bugg a insister ni dëkk bi dafa am ji defe naa ni li ngeen xam ñun ci leen ci seen ci wàllu gouvernement ci nangam la dama bëgg parce que bu ñu bëgg a yàq jël Cambérène tudde keneen mel ni Ablaye Thiaw fii ci xalif général de Layène yëfam mu ngi ñu fii toog dëkk baa ngi gaa yaa ngi njaboot gaa am na loo xamante ni nangam yow doo fi jàmbur que wane am na lu xamante ni suñuy kilifa nag ñu ngi fi bu xalaat ni am na loo xamante ni nag dëgg dëgg nag du diine du xam-xam du man mënuma nangu réew un état bu nga xamante ni vraiment nangam am léppam nag bu yàggee ñu bëggee continuer nii réew mi dem ba bëgg transférer nekk ay principauté ah li dal libaati lañu dal baaxul de loolu nag <laughs> nit doo jël say langam teg ko foofu loolu lay ñaan ñu gën ngeen gën a ràññi ñi ngeen di jëflanteel nee naa ci xale yëpp fu mu mënti doon il faut identifier bu fekkee ñaari at ñu xam kan mooy kan. yeewu xool ci rajo ñu ne waa kaw Cambérène Cambérène xalifa général bi laay lépp ay njabootam ak léppam war a man ci yëpp ci yëpp kooku kenn ñëwoo ci benn kii bi kër gi génn ci Sénégal amul lu kenn ñëwoon feneen ak lu ñu nangu yëpp ñu koy def fii loolu rek daa ni woon lii dinaa la ko jox nga yóbbante ka bu baax a baax a baax ñii luy jógee daal ci dëkk bi dëkk bi am na ay institution réew mi nag c'est normal association yaa ngi fi ku ne am nga ci droit nangam nangam mais association ndax ci nangam waaye nag kaddu Cambérène wala nangami Cambérène xalif général ne ci kaw suuf ah njabootam yam ci dul gis nga ci tale man sëy naa ànd ci moo ci de mukk parce que amuma benn capital gi bu kenn ñi may def loolu waaw te bu mittee ba tàng dañuy bëgg a dellu bu ñëwee dem kon di la wax ne rek ñu ngi lay gërëm di la sant waaye jaar ci yow gërëm di santaat la yóbbooti ci président tey du ni leen toogaayam fii ci nguur gi ba fii ñu toll dëgg dëgg commune bi laay gis na ci boppam kon yaakaar nañu ni bu loo fi mën a rëdd moom la nga ubbee wax fii tey kooku ñun manuma dégg man samay nopp diw def fi dara ah di doo du ko mën a argumenté mu parce defu fi dara def na fi lii moom ak leneen ak leneen ak leneen kon ñu ngi koy gërëm waaw ñu ngi koy sant ci tur suñu waajur di ko santit turu macha allah suñuy rak santit ka ci turu dëkk bi bu baax a baax a baax ak ci turu commune bi bépp bu ñu mënti nekk ci li nga xamante ni vraiment def na ko fi di wax ne la lii fi wàcc daal ci yàlla la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dañuy ñaan yàlla yàlla yàlla gën a gën a gën a sàmm suñu réew yàlla yàlla gën a boole leen ci li nga xamante ni moo ñuy jariñ yal na yàlla ñoŋal Sénégal yal na fi yàlla bàyyi suñuy kilifa diine yi nag ñoom ñëpp fii ma toog dama ko wax ñëpp nekk ñëpp damay wax ni kàddu gi ma yor fii ma toog kaddu bu dee ci diine la ci fa ma bokk kaddu kilifa diine yëpp fii ma toog yore naa ko parce que ñoom ñëpp damay gis sama bopp ci ñoom waaw kon yàlla na fi yàlla bàyyi teraanga naa ma sallallahu alayhi wa sallam